ma di leen xamal ni kër Aziz Bercy moo fa xewoon Bercy 2024 moom ngeen di jël moo gën a rëy ay dîner de gala ak ay soirée de gala loolu dafa tuuti lépp loo xam ne nit critiqué critiqué na ma ko ci gàmmu Aziz Ndiaye bii man de ma maa tey bu doon suba ma defaat ko bu def bu xewaatoon gannaaw suba la même chose fii ak 10 ans bu nu yàlla mayee fekkeek tal virgule du changé ci ni nuy gàmmoo wax la len yàlla sédde ak xol bu bon ci ngeen di de yalla ko waxon yonent bi waxal ñi la bañ mutu bi ghaizikum nañ de mais duté ya yonent bi insha allah rabbi at mu jot ni lay démé luma way wax man nak 13h bu dee ku siiw nga dina la tontu bala 22h di nga jot sa réponse yàlla nañu yàlla may ak tal ñu gam ko at yu bare bare bare mais ma rappelé wat len ni len man Modou fal ma tay lima def assalamu alaykum wa rahmatullah